mo ñëwaat ci seen jotaay waratil alquran tartila bi ngeen suivre ci ahlul quran wala ci compte youtube bi ahlul wala la maison du coran sunu jotaay bi wess ñu nekkon doon jàngat ahkamul mad di atté xëcc yi gisoon ci almad al wajib borom téere bi tuddoon ci almadd almuttasil gisoon tamit almaddal jaiz mu tuddoon ci ñett المد المنفصل أك المد البدل أك المد العارض للسكون نباي لو خل نغني المد مد اللين تي لاي دغ تودون تامن مد الجائز ولا المد اللازم كون وخون ني ولازم ان السكون اصلا آه، وقفا ووصلا كتا آه، بعد مد طويلة آه، وخون كون سبب مد اللازم ماي سكون تشسان go xamne day ñëw ci ginnaw xaraf xëcc mom mad lazim mom yi nak dafa am ay ay xaaj mom lay jàngale ci wal gi di ñëw mad lazim dafa seddel ko ci ñent xaaj liko waral nak moy dafa seddel ko ci ñaari xaaj ñeek mad lazim go xamne ci kalima lay nek ci baat ñu tudd ko mad lazim kalimi ak mad lazim go xamne ci xaraf lay nek ñu tudd ko mad lazim harfi mad lazim كلمي أك حرفي ونيك كونة تنيوم نار سد لكوات نار مد لازم كلمة سد لكوات مثقل ما يقول خم نجينا حرف ختي وحرف هني ولا شدة أما تمد مخفف ما يجينا وخم نكون تبعد بيجينا حرف ختي حرف هني وشدة كذلك حرف تمد séddli ko yeneen ñaar mu muthaqal mooy madd laazim xarfi goo xam ni ginnaaw xarafu xëcc wi shadda dafaa ñëw idgham wala muxaffaf mooy goo xam ne ginnaaw xarafu xëcc wi eh, xaraf wa ca topp shadda wu kon muñ ko bale day nekk ñeent moo tax borom téere bi nii ci baabu aqsaam al madd مني أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل أقسام لازم نين خاج المد اللازم أي خاجم أربعة نين لديهم يعني لدى علماء التجويد si borom xam-xami tajwid yi bi ñu settantele almadd lazim gis nañ ñeenti xaaj la wa tilka madd lazim moom mi xaajam yooyu kilmi am na ci kalimi yaani madd lazim goo xam ne kalimi lay tudd koy waral nag mooy xëccu madd lazim googu ci kalima la nekk ci baat moo tax ñu tudd ko kilmi wa xarfi maahu day ànd ak moom tamit pour ñaari xaaj yu njëkk yi mat madd lazim xarfi li waral ñu tudde ko noonu moy xëcc gi ñëw te sukunu kessan top ci lépp da bok nek ci wenn harf ñu tudde ko harfi kon bu nekké mad lazim bu nekké ci kalima kalimi lay tudd mad lazim kalimi bu nekké ci harf mad lazim harfi yi lay tudd kilahuma ñom ñaar ñëpp yani mad lazim kalibi ak mad lazim harfi ñom ñaar ñëpp mukhaffafun dinañ nek mukhaffaf kon mad lazim kalimi mu xaffaf am na mad lazim xarfi mu xaffaf am na muy ñaar muthaqalu daañu nekk muthaqal tamit kon mad lazim kalimi muthaqal am na mad lazim xarfi muthaqal am na ñeent moo tax mu ni fa haadihi yooyu njotalim arbaatun ñeenti xaajang na yoo xam ne tufassalu daañu ko firim fànc léegi kon mad lazim ci ay xaajam ñaar la yu xaajaat bu ci nekk ñaar buñ ko boole mu ñeent ñaar la yu xaajaat bu ci nekk ñaar buñ ko boole muy ñeent ñaar yi mooy kalimi xarf yi bu ci nekk ci ñoom ñaar xaajaat muthaqal muxaffaf buñ leen boole kon muy ñeent bu ci nekk mooy lan kon day taarif mad lazim kalimi taarif mad lazim xarf yi jox la booy ràññee ñoom ñaar ñëpp ban moo ci kalimi ban moo ci muthaqal ak ban moo ci muxaffaf من فإن بكلمة سكون نجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع فإن بفكيني بكلمة تبن بعد اجتمع دجنفا فا بفكيني دجنة تبن بعد سكون سكون مع حرف مد أندفاك فاك حرف خج أنا حرف خج نيونا سكون نيو ñëw ci te sukuun goog yi di sukuunuk asl nee na boobaa kilmiyun waqa ñi xam ni eh, madd laazim kalimi am na xasal waqa yaani xasal saa boo amee baat boo xam ne ci alquran gis nga ci xarafu xëcc te ginnaaw xarafu xëcc wi xaraf wu sukuun topp ca te ñu bokk benn mu nekk ci kalima ci benn baat ci baat مد لازم غوغي كلمي لاي تود اك سيغول نك سي خاجالي مثقل مخفف فوك غيس رك كلمي لا فوك غيسه خيتش غو خامني ميغي سي بن كلمه تا سي ميم كلمه بوبو حرف سكون توپ تا خيتش غوغي مد لازم كلمي لا كلمي من اول في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدأ awwala wujida ñu fekk lu mel lii mu la waxoon maanaam xarafu xëcc ñëw xarafu sukun topp ci ñu fekk ko fii thulathiyil xuruuf ci xaraf yi nga xam ne ñetti xaraf la ci dégg al li lihijaay yi da ci am yoo xam ni boo ko waxee ñaari xaraf ngay dégg waaye am yoo xam ni boo ko waxee ñetti xaraf ngay dégg thalathal ahruf sawtiya lay doon joxe ci misaal lu mel ni alif alif boo ko bindoon wenn xaraf ngay bind awra di nga bind muy alif waaye li nga dégg ñetti xaraf la ndax dégg nga hamza dégg nga ak laam dégg nga faa lu mel ni xarfu jiim jiim bi nga ko waxee dégg nga jiim dégg nga yàgg gu xëcc dégg nga miim gu sukun kon xeeti xaraf yooyu thalathatu ahruf sawtiya la nee na xeeti xaraf yooyu nag nga xam ni cim déggin ñetti xaraf la thulathil xuruf xaraf yoo xamante ni ñett la ci dégg bu fekkee ni dañ caa gis xaraf woo xam ni buñ ko waxe buñ ko waxee dañ ciy fekk xarafu xëcc ak xarafu sukuun wu ca topp te xarafu xëcc wi nekk ci digg bi nee na boobaa madd laazim xarf yi moo am loolu ñëw na ci misaalum xarafu lu mel ni miim miim da gis ni ñett xaraf nga dégg miim ak yàggu xëcc miim gu njëkk gi ak geneen miim gu sukkoon te boo xoolee da ngay gis ne xarafu xëcc moo nekk ci digg bi mooy yàgg xëcc miim gu njëkk gi ñëw na ci baatu laam xarfu laam kon gis ni ñett xaraf ngay dégg laam ak alif gi xëcc ak miim gu sukkoon te xarafu xëcc yi moo nekk ci digg bi day ñëw ci baat xarafu tamit xoof ci dégg ñetti xaraf nga dégg qaaf ak alif gi ko xëcc ak faagu sukun gi te xaraf wi nga xamante ni moo diggu mooy xarafu xëcc wi faaga ci topp daa sukun kon madd lazim am na waaye ci xaraf la amee ndax dëgg-dëgg loolu benn xaraf la waaye ci déggin ñetti xaraf la te ñett xaraf yi nga dégg bi ci digg bi xarafu xëcc la ba ca topp dafa sukun te neewoon na la saa bu xarafu xëcc ñëwee sukun topp ci te sukun gi sukunu ci saan medd laazim la waaye bu nekkee ci xaraf xarf yi lay doon comme ni ñu waxoon sànq ni bu nekkee ci kalima kalimi lay doon moo tax mu ni aw fi thulathi al xurufi daa wal madd wastuhu bu fekkee ne dañoo gis misaal moom mu la jox ci xaraf yi nga xam ne ñetti xaraf lañ ci dégg ñu gis ci xarafi xëcc sukun topp ci gu cosaan wal madd wastuhu te xaraf wa cay xëcc nekk ci digg bi fa xarfiyun bada loolu day leer daañu ne madd laazim xarfi la comme misaal yooyu ma joxe sànq ci nuun wala qaaf wala saad ak yu ni demee badaa mu leer nañ ni ki yaani zahar da ko àggale bi euh, pour bayt bi mat kon ñaari bayt yooyu taarif na ci madd laazim kalimi taarif na ci bu ñaareel bi tamit madd laasim xarfi kalimi mooy boo xam ni sukuun ak xarafu xëcc daa daje ci benn kalima xarafu xëcc wi ñëw sukuun gi topp ci mu nekk ci benn kalima madd laasim kalimi bu fekkee ni sukuun ak xarafu xëcc dañoo daje ci xaraf te xaraf yiñ mën a daje mooy xaraf yi nga xam ne ñetti xaraf la ci dégg boobaa madd laasim xarfi moo am kilahuma ñoom ñaar ñëpp nag mad lazim ak mad lazim kelim yi muthaqalun day nekk muthaqal in udghima bu fekkee ni dañoo idgham maanaam ginnaaw xaraf xëcc wi xaraf wu ñu shadda moo fa nekk bu dee ci kalimi day nekk mad lazim kalimi muthaqal lu mel ni alxaa cosaan li moo nekkoon alxaaqa nga xam ne ginnaaw xarafu xëcc wi xarafu sukuun moo fa nekkoon di xaaf ak geneen qaaf gu fatxa qaaf googi sukuun ñu idgaam ko ci qaaf gi fatxa mu nekk mujj nekk wenn xarafu shadda kon sukuunu cosaan ñëwoon na ca ñu idgaam ko léegi mu nekk wenn xarafu shadda idgham googu ñu moo koy tudde musaqqal ci benn baat la nekk waaye idgham gi moo ko tudde musaqqal moo nekk ci baatu alxaqa moo nekk ci baatu ki misaal attamma ci moo ciy nekk ak ci yeneen baat ci alquran yu bari comme sawaafa fa ida wajabat ak yeneen baat yooyu ay madd lazim kalimi lañ waaye musaqal lañ ndax ginnaaw xarafu xëcc wi idgham dafa am bu dee tamit madd lazim xaraf yi bu lu mel noonu amee musaqal lay tudd lu mel ni alif laam miim laam dañu gis ne ñetti xaraf la kon mad lazim am na ci bu njëkk bi diggu na euh, xaraf xëcc wi diggu na bi ci topp sukun na mad lazim am na ci waaye miim goo gii jeexal laam ci njàngin danga dégg ñu idgham ko ci geneen miim ga miimu miim kon mad lazim gi nekk ci laam foofu mad lazim xarfi la waaye mu muthaqal la ndax miimam gu mujj googu sukun dañ ko idgham ca miim ga ca topp te kasra alif laam miim gis nga bu fekkee nag loolu amu ci ci ñaar yëpp mu kalimi ak xarfi bu fekkee ne gis nañ ne ginnaaw xarafu xëcc wi xarafoos daa sukun rek waaye idgham amu fa bu boobaa mu xaffaf lay tudd bu dee kalimi lu mel ni baatu al laam gi sukun ginnaaw xarafu xëcc wi إدغام أموتش سكون رجمو فنك مدلازم كلمي مخفف بديت من تحرفي إلى كذلك لمن نون صاد ولا ميم ولمن كاف ها كاف منغوك لكن نيو لازم حرفي ci xuruf yooyu nga xam moom lañ tuddee xuruf fawaatixi suwar moom ci juróom-ñaari xaraf rek li ma doon mooy xaraf yi tënk baatu kam asal naqas ñoom ñooy am mad laazim xarf ndax xuruf fawaatixi suwar ñetti dafa séddalikoo ci ñett xaraf yoo xam ni kenn du leen xëcc aslan alif kese moo fa nekk ak yoo xam ne xarakateen lañ koy xëcc fo fo foo ko fekk moo tënku ci baatu xayun tahur xaa حاميم كن حاميم ديدت حركتين رك حاميم يا تامن نون ياسين طا كم طه مومك ها نيب فين نان فوف را كوم الف لام را يوم حي طهور حركتين لنين خج واي كم عسل نقص يوم ست حركات لنين خج نخ اي مد لازم لني دون يوم نيو ني نك مد لازم حرفي مثقل buñu bu ginnaw xëcc gi mu nek muthaqqal buñu ñu mu nek muhaffaf moo tax mu ne kilahuma muthaqqalun in idghama ñom ñaan ñep de nek muthaqqal buñu ñu leen muhaffafun kulun idha lam yudghama ñu nek muhaffaf bu fekke ni idgaamuñ leen mu ne walazimul harfi awwal aswar mad lazim harfi ci njalbeenu benu sari lay nek wujuduhu fa lañ koy fekk wa fi thamaanin xasar ci juróom-ñetti xaraf la tënku ndax xurufawaati xasuwar yëpp fukk ak ñeent la moom nañ tënk ci silhu su xayra man qataaka waaye fukk ak ñeent yooyu eh, juróom-ñett kese ñoo ci am mad lazim xarfi yooyu nga xam ne ñooy am mad lazim xarfi nee na yajmauha da koy dajale xuruufu kam asal yi tënku ci baatu kam naqas phrase boobu ñooy xaraf yi nga xam ni ci la mad lazim xarfi dina maam kaaf miim ayin siin laam nuun qaaf saad wa aynu bu dee ayin nag dhu wajhayni moom am na ñaari wajhu am na qasr am na madd wa tuulu axas xëcc ko nag moom moo gën a wér wa ma siwa alxarf thulathi la alif bu génnee nag xaraf yi nga xam ne thulathi al xuruf la di kamaasal naqas te nga génnewaat ci alif fa madduhu ñoom xëcc leen maddan tabiiyan ulif liñ gën a miin mooy xëcc ko madd tabii te mooy حرف يغا خامتيني جوني نكو سانك حروف حي طهور مدخمني وذاك ايضا في فواتح السور نيومت تي بين سار ساري في لفظ حي طاهر نيومك الف بنين نن بوله لفظ حي طاهر نيومت حركتين لا نين خج بودول الف نخ الف ممكن دوك خج قد انحصر نيوم فوفو لن بدي حروف فواتح سور يبنك نينا يجمعها يجمع ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا الشهر حرف ينيك فواتح سور ما نمسار ينغ خمني دفا تنبلي أي حروف يب يب يب يب بني كو دجالي حرف يو يب فك حرف نينت كسل جنوك موي حرف ينيك صله سحيرا من قطعك ما نمني ويجمع دي دجالي الفواتح الأربع عشر xaraf yi nga xam dafa tijji ay saar tey fukk ak ñeent da koy dajale faraasu silhu suxayra man qataaka dashtahar siiwe na ci faraas boobu ñu ko ci dajale yeneen beneen xaraf bu dul boobu du bokk ci xuruf fawaatixi suwar ndax yooyu kese mooy tijji saar mbokk yi loolu moo nekkoon kon aqsaamil maddi laazim kalimi la ak xarfi kalimi moy bu nek ci kalima mad lazim nek ci kalima bu buñu ñu ci ginnaw xëcc gi muy musaqqal buñu ñu muy mukhaffaf harfi moy mooy mad lazim bu ci harf ci juróom-ñetti harf la mëna doon moy huruf kama asal naqas buñu ñu ginnaw xëcc gi mu nek musaqqal buñu ñu mu nek mukhaffaf téré bi jeexna li ci dess rek moy xana tejj tek téré bi di khatima gi inshallah نام جتاي بي دي نييو اند تيك يين سين مبك لون ابو طه محمد علي نغي سي سين جتاي ورتل القران ترتيلا يين نغي نون توب سي اهل القران بوين كوم ولا سي كونت يوتيوب اهل القران ولا لا ميزو دي كون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الله الله الله الله الله الله